30 personnes jigéen bu nga xam ne drogué deful dara 30 personnes mënul yéeg si benn kaw si si benn jigéen ku jigéen ki moom ñoom ñaar ñëpp a dee parce que jàpp nañu foofu 3 jours 3 jours chaque jour dañuy yàgg yéeg si kaw jigéen boobu man kay benn jour laa kii guddi ji ma dégg mu yuuxu yuuxu boobu ma xam ne kii dee keneen ki moom bu mu doon dee yéeguma ko mais gisatuma ko ñun suñu convoi bi

ñu bàyyi ñu foofu ñoom ñii sax ñoo ñu expliquer yoon bi ñu ne ñu jël leen yoon bi tout nangu suñu xaalis si yére baax yi lépp nangu ndekete ñun man mënuma dox cent quatre-vingts kilomètres si désert du tali cent quatre-vingts kilomètres mënuma ko ak blessure yu ma amoon mënuma dox cent quatre-vingts kilomètres bon ñu dem dem dem première si désert da ngay gis sa ndox geex sa lekk geex fekk ñi leen jiituwoon fekk ñu bëri dee nañu ñooñu seen ndox bi ngeen di jël naan ko man départ bi dama doon kii malgré suma loxo bi dafa damm bu mu gisee benn niw ni ma jël suuf dajale mais bu mooy gis muy bëri di bëri di bëri mel ni jën yi yu lab kii bi tefes fii moom yàlla ñu ma jëkkal mënutum man damay dee parce que nombre de kilomètres bu ñu wax mënuñu ko dox dèjà dafa métti boo gisee suñu yaram yi dafa mel ni toog nañu un an sanguñ mel ni yaay jël lam si xotti suñu yaram bi parce que temps tàngoor la tombé poussière la poussière sal ñu def loolu def effort bu ñu gis hélico bi bu ñu gisee hélico bi ñu yëkkati suñu la na militaire algérien yi xam naa dóoru seen laser yi suñu kaw xool est-ce que ñii aérobel lañu wala du ñu ay hélico bi woote seen camp bu xam naa seen seet bi moo leen jox or 36 personnes moo des ñeneen ñi 180 personnes 36 moo des ñeneen ñëpp dañu dee ñeneen ñëpp dañu dee te ñëpp ay sénégalais non nation yi dañoo bëri ay sénégalais façon nation bu nekk nga koy da boo dajal bu ñu kiyee loolu militaires yi génn vers quinze heures la ñu jëlee hélico hélico bi seen base bi si biir dëkk bi de si base bi la ñu ñëw fa eggee tellement sonn tëdd nelaw nelaw boo lan demee bi quatorze heures la ñu yee seen chef bi ñëw mu ne ah xanaa nangu nañ seen xaalis ñu ne waaw nangu nañ ana ñu ne leen ñu bëri dee nañ ñun ñu xam ne ñu xam ne am nañ blessé ñu yóbbu ñu seen camp faj ñu mu ñu loi bi lu mu wax fii loi algérie immigré bu ñu jàpp dañ la war a delloo si désert mais yéen état bu ngeen nekk nii damay jël risque parce que du ñu bokkoon tamit damay jël risque bu dee dañ bu ñu ma simbee sax dama koy mais damay jël risque bu yóbbu leen ñu faj mais ñu nga xam ne gaañu ñu blessé tiwuñu ñooñu du ma leen yóbbu cinq kilomètres moo leen dese dem leen kat kat bu leen dem angul parce que am na militaire yu nekk si kanam bu ñu leen jàppee dañ leen dem ngeen xaar bu bu xawee dem tuuti ngeen dem ñoo ñu dem mais ñun ñu ñu xam ne dañu gaañ bu ñu kàmba faj ñu mooy première ville Algérie bi Bors ñu fay naan Bors ma nekk Bors deux semaines ma woo suma benn grand moom laa bayaloon suma xaalis fu ma kalee rek moom lay woo ñu yónnee bu ma nekkee Bors ma woo ko ma ne ma laajtee Bors bu Adral ñaata ñu ne moom cinquante mille man a ko léegi da nga ma yónnee cent yónnee ma cent mille ma jóge ñu Bors mooy seen ñoom seen dix mille ma fay si camion yi la ñuy dugal camion bu nga xam ne tamit ay keesu. kaani keesu tamaate lañu riime ñun ñu rassemble ñu si digg bi parce euh, yi bu ñu leen jàppee wala gendarme yow mii chauffeur bi da sa oto ñu dem ba Atral Atral tamit dañuy wàccee neuf de ñu dox ko ko dox ko bu ñu egg man am na ñaari booy Gambie ay booy ay mineur lañ mënuma leen bàyyi bu ma gisee policiers yi di jaabante si ginnaaw dem jënd ticket bu ma xamee ni oto bi fees na boobu rigal na ko ñu war a dem Atral ñu jàpp ñu bëri delloo leen si désert ñun rëccu nañ ñun sept personnes foofu rëccu oto bu mu chauffeur bu mu taalee oto bi ma gis ñuy def décompte coxeur bi ak chauffeur bi ñëw dugg oto bi oto bi dema ñu dem boobu minibus la ñu dem adral adral nekk naa adral tamit deux semaines parce que comme dama gaañoon tamit mënu moon forcé voyage léegi boo yu ma àndal am na seen benn mag bu nekk si frontière Maroc Algérie ñun adresse boobu lañu doon dem ñi nekk Adral Adral deux semaines ñu jóge Adral dem Gardaya Gardaya Oran Oran ñi fanaan foofu ëllëg si jël train bi dem Magania dëkk bu ñuy naan Magania seen président bi sax waa foofu ma nekk Magania ba wér nekk naa Magania mooy photo yu ma la envoyé noonu si biir kamb foofu nekk naa fa set mois mais kamb yooyu noonu nu mu demee waaw kamb Maroc la jóge caniveau la algérien yi du ñu nangu nit ku ñuul si néegi algérien yi nangu nit ku ñuul dox si kaw tali algérien yi ñoo gën a soxor pays naar yi muy Libye Tunisie def naa Libye def naa Tunisie def naa Maroc def naa Algérie mais algérien yi ñoo gën a soxor dama fàtte sinon dinaa la doon man am naa séjour sinon dinaa ko doon indi sama indi la nga xool parce que photo bi ma koy wax dama gis ay jigéen ci kii waaw jigéen yooyu dañ fay nekk jigéen moo tax jigéen tamit voyage jigéen yoonu suuf man dama ko parce que da ngay jaay sa bopp

lëngër bi moom Maroc la jóge Ousda yow ba Maganeel Ousda la jóge bu Maganeel mais ñoom tamit dañu bëgg jàll dem Maroc Maroc Espagne léegi caamaan yi ñooy nekk seen jëkkër boo ñëwee caamaan bi moo lay bere nga nekk ak moom ba bis bu mu lay bay mën a git bi git bi yóbbul ma kii git bi yóbbul su la yóbbu Espagne lay yóbbu non Maroc la lay dugal caamaan yi loolu mooy seen liggéey ñoom da ngay fay entrée entrée fois vingt mille dirham vingt mille boo ko boo ko jëlee deux cent mille vingt mille dinar kay deux cent mille da ngay fay entrée foyer bu boo fa nekkee man ma nekk Magania si biir kamb boobu sept mois mais ma dellu orange ma reculer orange parce que Magania liggéey tool moo fa nekk ay zeytun ay orange ay pom xam nga liggéey tool daal moo fa nekk ma dellu orange orange ma def ko un an six mois def naa orange un an six mois xaalis lu ma liggéey yëpp transport local laa doon def war a yónnee cent euros nga fay cinquante euros man mun naa fi bay xaalis Sénégal yow ma nekk ak yow Algérie a yónnee xaalis jox ma cinquante euros ma yónnee da nga may jox cent euros yi cinquante euros da may jox numéro ak tout bu dee Western Union Orange Money bon man bayu moom Orange Money fii sax wari laa bayoon fii noonu la ñuy yónnee xaalis Algérie yónnee xaalis Algérie tardement mais da koy absent parce que boo yoree xaalis sa poche risque boo ko defee sa néeg risque policiers bu ñu la jàppee dañuy nangu sa téléphone nangu sa xaalis ba pare dem sànni la tey nga dem dee foofu moo tax lu nga liggéey demal nga wéccee ko euro vite jox benn naar mu dem wécceel la ko euro nga jël taxi maa fi mu yóbbu la fu ñuy yónnee xaalis dafe sa Algérie dugg Algérie la bu la jàppee dañu lay rey marocain seen frontière bi fooyoo ñu ko gis nga immigration bi bu arrêté wul entre Maroc Algérie Maroc Algérie guerre dina musa ngir immigré parce que man xam naa Algérie def naa quarante-huit raisons Maroc c'est nga tijji buntu bi dugg fii noonu la. mais comme dañu am problème am na tali am yoonu train. mais dañu dagg tali dagg yoonu train. léegi algériens yi gas kamb. largeur bi sept mètres. profondeur huit mètres. huit mètres man bu ma fa duggee mënu ma génn. te ba pare ay xeer lañ fa sànni comme ça ku képpee nga dam am na côté yu nga xam ne. foofu oto mënu faa ay pour gas. noonu la ñuy kii bu ñu la jàppee ñu bëri dee nañu Magania si biir kamb si ay sénégalais ay guinéens ay parce que bant kii la ñu ci ay fer lañu yor fer di la doo damm sa faar toj sa bët yi billaay wallaay bu ma doon jóge Algérie benn gid la gid boobu moo mën ñëpp moom musul yóbbu ay nit mu essuyer bu ñu koy jàpp tamit si biir ville Ousda lañ koy jàpp ñu génnee bu ñu la jàppee si biir ville bi ñu la dóor mais bu ñu la jàppee frontière problème la gid bi ivoirien la mu ne ñu dañu may fay cent euros cent euros pour ma jàpp ñun quarante huit personnes premier parce que déviation ngeen di def

comme quatre heures du matin ma ne la dem si benn jumaa toog foofu boo yooyu noonu non ñu dem garage garage ñu dem premier garage bi fekk gendarme am pagaay ma ne taxi man bi tax taxaw continuer ñu dem si benn juma nekk si biir jumaa ñu julli fajar ji ndekete si biir jumaa ji am na ñaari policiers yu fa nekk mais dañu nekk en civil